Euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ne tey dama leen bëggoona bëggoon woon benn euh, vidéo boo xam ne dama ci expliquer ni ngeen di ni ngeen mën a par exemple couper euh, couper benn vidéo par exemple bu ngeen amoon boo xam ne dafa am benn partie bu ngeen ci soxla maanaam vidéo bi dafa nekk vidéo boo xam ne par am na benn partie boo xam ne daal mu ngi ci biir vidéo moom dañ koo soxla bu ko def benn ah, maanaam mu nekk mu nekk benn vidéo à part entière loolu laa leen bëggoon euh, wan nan ngeen koy defee ak euh, application bi ñuy wax VLC euh, léegi pour ngeen def loolu noonu yomb na trop da ngeen dem ci vidéo bi par exemple exemple bu ne woon nii da ngeen ci fi ngeen ñëw ci fichier bi nga xam ne nii fi la vidéo bi nekk par exemple comme vidéo bi laa leen bëgg expliquer vidéo vidéo bi ma bind vidéo en wolof léegi da ngay def clic bu la neexee man nga def clic droit nga def nga def ouvrir par exemple ouvrir avec VLC su la neexee ma ngi ubbi application VLC bi nga dem foofu directement mais su nekkee ne vidéo bi xam ngeen fichier bi fan la nekk da ngeen dem foofu ngeen def kii nii clic droit après nga cliquer fii ñu bi VLC pour bi daal léegi soo ko ubbee. voilà vidéo bi mi ngi nii quoi pour ngeen gën koo mën a gis léegi euh, léegi par exemple fu ngeen bëgg partie bi nga moom ngeen bëgg moom ngeen bëgg a choisir da ngeen fay euh, jouer vidéo bi agsi ci partie boobu par exemple par exemple vidéo bi mi ngi jouer nii quoi pour l'instant nii. wala mu avancé ko tuuti par exemple partie bi nii partie bii nii laa bëgg a fii laa bëgg a commencé kii vidéo bi damay da ngay cliquer ci pause nga arrêté foofu vidéo bi soo arrêté vidéo bi nga dem ci fii ñu bind lecture xool leen baax lu ma leen expliqué fii ñu bind lecture nga cliquer foofu nga cliquer enregistrer soo cliquer enregistrer après nga ñëwaat fii cliquer fii ñu bind euh, fii ñu bind euh, maanaam fi nga xam ne fi ngay commencé jouer nga cliquer mu commencé. mu ko vidéo bi vidéo bi commencé euh, jouer daal léegi nee ni bàyyi nag vidéo bi di jouer ba partie bi nga xam fi nga xam ne ni fa ngeen bëgg yemale vidéo bi par exemple vidéo bi mi léegi su jouer ba nga àgg na fi nga xam ne fi laa bëgg yemale vidéo bi foofu damay defaat pause maanaam damay defaat pause nii voilà damay def pose léegi su ma defee pause ma ñëwaat fii ñu bind lecture cliquer waat ci enregistrer très soo defee nii cliquer ci enregistré boo dem bu ñëwaatee fii nga xam ne fii la dossier bi euh, voilà fii la ko enregistré ci vidéo la ko enregistré effectivement léegi kon bu ngeen ko enregistré pare da ngay ñëw fii ñu bind vidéo gis nga nii fii ne ko fii ko enregistré léegi gis nga su ma ci cliquer voilà su ma cliquer gis na nii vidéo bi mu ngi nii di di di jouer quoi léegi nga xam ne soo enregistré affaire ba pare dangay ngay dem euh, ci dossier bi nga xam ne mooy vidéo ci ci sa euh, ordinateur boo fa cliquer gis nga ni vidéo bi da ngay ngay fekk mu defal la ko benn fichier euh, nga mën ko nga mën koo partager wala yu demee noonu quoi. loolu daal laa ne woon naa ne ko indil comme information di wax ne très simple VLC application bu bu bu bu efficace la boo xam ne nii euh, man euh, par exemple su ngeen bëggee amee vidéo boo xam ne da ngeen bëgg a dagg ay ay parties ci vidéo bi VLC mën nañu ko defal quoi. loolu information di leen jaajëfal yi ñëpp.